mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois ñuy ñëw ak yéen ci actualité tey naka ñu wax ci ki nga xam ni moom mooy Yakham Mbaye nouvelle boo xam ni nag nouvelle bu nakari la jëm ci moom di feebar boo xam ni tëral na ko ba ñu daal di koy évacuer fu li nga xam ni moom mooy France xam ngeen ni jamono yi yëpp ñu ngi lamlaamee feebaru ki nga xam ni moom mooy Yakham Mbaye nekk membre bu ràññeeku ci APR jamono jee sax na waroon na teew fa li nga xam ni moom mooy émission ndumbelaan mujjeewut a teew ndax malaise boo xam ni amoon amoon na ko loolu nag waral ba ñu daal di koy évacuer fa li nga xam ni moom mooy France li ko daal di tëral nag amuñu ci lu leer la boo xam ni feebaru xol la maanaam maladie cardiovasculaire ñu leen di fàttali ni Yakham Mbaye nag ku ràññeeku la ci li nga xam ni moom mooy parti APR di défendre bu baax ki nga xam ni moom mooy président Macky Sall waaye tamit dafa daal di jiite la li nga xam ni moom mooy quotidien Le Soleil ñu koy ñaanal nag yàlla fëgg boppam ba mu daal di dellu si ay activité ma ñu leen di wax nag comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti point com ngir benn information bañ leen a rawoo di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar